Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. voilà mbokku euh, euh, kii euh, téléspectateur e, e, Equivox TV ñu ngi fi tey géejawaay <coughs> ñu ñu ñëw seet kii di Sa Thiès di mbër moo xam ne que kenn kenn kenn dootu ko présenté. donc euh, ñëwoon fi tey waxtaan ak moom ci euh, actualité làmb ci combat am contre Garga ak ak yeneen question incha allah fi ñuy commencé mooy champion ñëw nañ fi fekk euh, mu mel ni ay ay ay ay wër xaw ma ndax danga nekk di di yé yégale njàng mi si wàllu alxuraan wala. waaw lii moom xam nga sant la rek waaw di santaat yàlla nag moom ñu may taal ak fekkee amoon na ñu ko bëggoon a fekkee yàlla jëlee leen fi. maa ngi leen di ñaanal yàlla xarale àjjana ak Daouda Seck moom mi nga xam amoon nañu yéene mu fekkee ko ak xaadim nga xamante ne moom laa daan doon guddeeg bëccëg ak Fatou ak Abbas maa ngi leen di ñaanal seen fañ jëm ak samay mag yi gaañu yëpp ki nekk ñoom Marème maa ngi leen di ñaanal yàlla xaarale leen àjjana ñi leen fa fekk leen fa fekk buñ ci jógee loolu ñi tëdd hôpital amoon nañu yéene am yëg am wér pour mën a jëfi yëf mel nii. yàlla leen yàlla yëkkati ñu am wér am gudd fan dañu koy fekkee ak wér gu yaram ñu di ko def ñi caay féetee ginnaaw yàlla nañ caay féetee kanam ndax yi mel ni dañ koy bëgg a assisté di ñaan yàlla yàlla na jàmm yàgg di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi euh, di nuyu sëñ Abdou Karim suma sëriñ suma kilifa euh, di wax it jërëjëf sëñ Touba moom mi waral bi si mel nii. buñ fa jógee euh, macha allah Sa saa yi bu ñu ko fekkee rek forme bi dafa dafa mel ni du dee wàññi ko car macha allah judduwaay la wala liggéey la bu <laughs> bu sax dakk <laughs> waaw man dëgg ñu entraîné wax dëgg yàlla. walaay gëj ñu entraîné sax am fan yi moom euh, lamb ji moom guddi tool lamb Sëñ Tuubaa la ci lañ nekk. maanaam maanaam lu lamb Sëñ Tuubaa mooy. bisu safar gi fi nekk. Ah. si safar gi ñu nekk moo war lu bari bëri amuñu temps bi waaw bu weesoo nag bañ dem màggal ba ñëw ah dañuy commencé waat suñu entraînement man moom ku ma xam ku ne ni ma mel nii jëmm yi rek ko def ci man ganaaw yàlla yontu bi mi papi ji olympique nu ma mel sama santé du cëpp moom la dëgg yàlla waaw lu bëri suma ko xamul ci entraînement à cause de ñoom waaw ak booy ñaa yàlla da def la mu def mu toog année mu am mbas bëriwul gars yi yàkkamti lool ñu ne déedéet waaye ñu mu combat mag ak ak Garga Mbossé ñu ne taxaw na waaye combat sa combat sax Garga Mbossé fa la toll champion. waaw des na des na des na euh, desul na ci Garga sama juumale te desul ci man ndax tamit jàpp naa ni pour euh, promoteur bu woon nañu waxtaan ak ñun xëy na nag am na li mu yaakaar te jotagu ci wala am na li muy xaar rek moo tax xëy na mu des tuuti. loolu laa jàpp daal mais desetul taa ci mais est-ce que tey jour tey mën nañ jàpp ne combat am na diggante Garga ak Sa Thiès am na. non taxawagul taxawagul des na moom laa lay ni moo tax ma la xam nga combat moom bu ñu ko waxtaanee ba dënk. Euh, jàpp naa ni li ci des yëpp. mooy da ngay génne avance kon buñ ñu nee taxawagul boo boog léegi mu ngi bëgg a def ñaari weer est-ce que loolu dafay wane ne tey Sa bu yàlla dogalee tey beneen promoteur bëgg ko ak beneen combat est-ce que na pour pour bëre soit ak Garga wala ak keneen mais mu bëreel beneen promoteur. waaw mais sama yoon may na ma ko signaler ma kenn ak kayit bu war a firnde ni man dama war a signé bëre dama laa loolu moom euh, duma ko def tamit ci nga tënk ci ay kàddu rek ma signaler la nga jox ma xaalis ak yoon noonu du ko def. dañuy waxtaan bu ñu dënkee nga jox ma dañuy waxtaan bu ñu dënkee jotagoo li nga yor bu fekkente ni mun naa patienté naa patienté mais nag bu ma patienté ba yenn heures yi tamit su ma gisee leneen ma koy jël waaw sa accès woo accès woo si fi nga war a gisee leneen jël ko accès gul wala mu ngi rek ba léegi non accès nañ ci ah accès parce que tamit am na yeneen promoteur yu ko bëgg waaw am na ñeneen ñu ko bëgg xëy ñoom ñi ngi waxtaan ak kaaw gar ga ci li ñu wax bu ñu paree parce que ñoom dañoo dañoo bëgg a bàyyi ba ñu màggal a pare mm-hmm. pour ñu confirmer loolu waaw mm-hmm. kon ñi la bëgg ak ak contre garga la ba léegi wala beneen bër garga bi nag moo ci ëpp moo ci ëpp doole waaw parce que plus de quatre quatre promoteurs cinq yoo xamante ni benn garge bi lañ may tuddal. d'accord léegi garga man li ñu foree si wow bi li nga cachet bi nga nangu contre garga feew nañ la cachet bu bu ko ëpp pour nga bëre rek rëg rëg te jëloo rëg rëg loolu am na wala amul. am na. waaw léegi lan moo waral choix boobu choix sportif la choix sportif bi moo jël devant si si si choix financier bi wala. waaw xam nga ki nga bokk génération. mayu la sens bokkul ak koo xamante ni euh, yaa ko yaa ko yaa xaw a ci làmb waaw yaa xaw a yilif te it du cadre xëy na nag am na loo xamante ni sama diggante promoteur bi lay doon ci suuf lay doon waaw mais la ca kaw na mën ngaa jàpp mooy ëpp waaye ci suuf mën na tolloo moom baa mu weesu ko mais xëy na làmb toll nañ fu jamono joo xamante ni xaalis bi ñu ci bëgg doo ko am waaw bi yoru ko sponsor bi nekku ci. kon nag dañuy jàppalante rek. war na def ay jéego moom rek rek pour egg ci ci ci Sa Thiès c'est ça. non na ci man. moom laa ni dama ne la. ñi di nga bëri ak koo xamante ni moo la moo la sut ci làmb. waaw moo la sut muy moo la jiitu. man fa laay waxee. bari koo xamante ni tey yéen ñaar yéen bokk benn génération. maintenance amu ci. waaw xëy na nag <laughs> oto bu ci nekk ak li muy jar rek. waaw oto bu nekk li ci jar te it xëy na waxtaanu rëg-rëg bi kaa bi yàggul. parce que waa ji woo nañu benn yoon wax ñu li ñuy wax. ñun tamit ñu tontu ko lu ñu koy tontu après mu dem ma dem. wax dëgg yàlla après dégg naa ko nag mu naan ay xaw ma daa woo Aziz après pour jéem a yokk. mais yow amul sens. pour wàññi si amul sens. pourquoi nga am. parce que amul sens amul amul sens. gis nga nit dafa am loo xamante ni nit ku ne xam nga lu raisonnable raisonnable. mais nit ku nekk dafa am lu muy jar. am na ñoo xam dañ ñuy jar am loo xamante ne làmb ji ngay xam li muy jar daa bokkul am na làmb yoo xam ne dunoo ko tëgg mukk di perte sama combat garga kenn du ko tëgg di perte sama combat ak Reug kenn du ko tëgg di per mhm. mais chaque fois ñoom dañuy insisté rek ay ay corona tax xaas amul xaalis amul bu xaalis amulee nooy tëggee làmb dañu waxante dëgg boo yoru toogal bul tëgg bu corona bi jàllee nga wut ñëw tëgg man loolu dong laa ko jàppee de dëgg yàlla mhm. parce que waxtaan nag day neex borom mhm. ndax nit am na nooy waxee moom sa day am kersa ba lim la war laaj loo ko mais am na nag yenn wax yoo xamante ni da ngay woon ni ki comme si que da yow boo ko tëggul moom du bëri yàlla xam na ni am na ñoo xamante ni peut être bi début goon nañ ma jox seen xaalis mais amuñu woon problème adversaire la ñuy am nit boo ko lekkalee xaalisam mu andi la adversaire boo xamante ni gënalu la te su boobaa da ngeen di ay conséquences yoo xamante ni leneen leneen ma ci topp te du ko jar si la foo ma toog déglu ba nga xamante ni kii laa war a bëreel ma xam nan laa ci war a fayee ko ci condition tamit samay mbokk ñu accordé ma loolu après bu ko defee kenn ku nekk. waaye daal bu daal mën nañ jàpp ne ren di nga takk ngeen ba bëri bu soobee yàlla incha allah man année bi ma yaane balance sax yàlla xam na ni ndoroon naa ci jël combat mais nag ku nekk da nga am loo xamante ni bu la dalee il faut nga reculer waat xoolaat sa bopp moment yooyu moo taxoon mujj jëm ma retourné mais Pape Thialis jëloon na benn somme pour joxoon moom a téye ko après mu tal ma adversaire mais man maa ngoon a téye ko guy gi ak rëg-rëg mujjee taxaw finalement noo gisee combat bu jàngat. est que finalisé nañ ko. kañ. waaw man dégg naa ñu wax ci mais boobu ba léegi gisuma ci. jot na jot na encore daal lu ci mën a am yàlla na guy am ndam ci barke Seydina Mohamed ba dëgg yàlla moom laa dëkkal moom laa xam moom la miin te moom laa ñaan yàlla yàlla may ko ndam làmb la nag làmb neex la làmb la boo xamante ni kenn ci perte kenn ci perte mais maa ngi ñaan rek rek rek yàlla euh, kii guy gi yàlla may ko ndam ci ndam bu gaaw ndam bu sedd ndam loo xam ne sa ko foogee. Balla Gaye dégguy euh, Gris Bordeaux coow lu bari li jàngat ban nga ci def coow li Gris Gaston daf koy delloo 10 million def ko loo ci jàngat. ñu waxtaanee ko waaw parce que xam nga lépp loo gis waxtaan la réeroo fu mu am rek ñàkk waxtaan ko fa jiitu te moom laa chaque jour Gaston suñu papa la te dañ na mag buur la bu juumee sax yàlla jéggal ko ko waaye Gaston tey moom moo ñu war a tette. bañ jumte war bañ a am ci ay njabootam am na yenn wax yoo xam ne du ko war am wax yoo xamante ni waru Gris Bordeaux mais li may ñu ñaan nag mooy magum làmb yi fi nekk ñu jéem a xool nan la gën a rafetee ñu doxalee ko seen diggante parce que lii day jeex tamit waaw benn làmb rek jaru coow jaru xuloo te boo bëggee da ngay jéem a woyof tuuti ba am li nga bëgg bu demee ba sotti nag bu la neexee nag bondel waaw boobaa kenn lox dara waaw gasoo nag waaw maa ngi koy ñaan de papa Père Gaston wool giri nga waxtaan ak moom giri bu la ay mag woowee tam ngeen waxtaan ngir yàlla ngeen jéem a finaliser ngeen xool li ngeen di def parce que tamit làmb yàggatul ñun ñi nekk xale xam nañ yàggatul asumaak ci côté moom mi ak Balla làmb jooju ñëpp ko bëgg moom da koo bëgg bala da koo bëgg kon niñ jéem a xool nu mu rafetee ñu bëre ko ci ci play fi ñuy jeexalee champion mooy euh, actualité actualité actuellement mooy CNG coowal Alioune Sarr war na dem warul dem mbër war na mën a ñëw mbër waru mën a ñëw yow euh, ban lecture ngay nga def si loolu Alioune war na dem warul dem ak est-ce que mbër war na ko mën a remplacer ancien mbër. mais Père Alioune bu doyalee na dem bu nit ñi doyalee ci moom na dem balaa ñu koy ŋàññ ci leneen gis nga bu dee fukk yu baax yokk na ko ci làmb. bu dee fukk yu baax yokku na ko ci làmb am na cër yu ko làmb war a fay waaye dara warta ñaaw te warta moom warta xaar dara di ñaaw ci côté ndax bu dul dara mag la bu dul dara gungee na vingt six ans la ñu wax ci carrière kon yaakaar naa nag làmb dara jaaxalatu ko fa waaw nit ñi nag xëy na faluñu ko de nguur ko fa teg nest nguur moo koy folli waaye man bu doon sama sago mu quitté bàyyi ñeneen ñu liggéey ñu xool ba xam waaw mais damay wax ni ki fay toog na xool li fa baax mu yokk ko ki fay toog na xool li ci bon mu fatt ko mu xool li avancé loolu làmb mu dox ci teet muy déglu te am dal waaw boo. Euh, ñi ko war a mën a wutu ñu ñu ne ancien ñu ngi tudd Tyson ñu ngi tudd Tafa ñu ngi tudd Yekini ñu ngi tudd Manga 2 ñu ngi tudd Boy Kayre est-ce que jàpp nga ne ancien mbër war na mën a toog place. am na keneen ah xaw ma lan te technique maa ngi ko ciy de. waaw ak jeu technique pour waaw <laughs> pourquoi ñoom mënuñu koo sekk ñoom ñu seen biir gis nga alalu mbooloo xelu mbooloo moo koy tënk nit. bu jiitee ñaari nit ba ñett ba ñeent dañuy ute sax xalaat yenn saay li mm-hmm. la ci génne nag mooy dal waaw woyof parce que dina di nga dégg lu ne di gis lu nekk dinañ la waxal lu ne mm-hmm. boo amul maîtrise bi nag fa ngay nekk xuntu mm-hmm. ak i wax ju bari te suñu soxlaa ñu daray wax man mise technique war na ko yor Tyson war na ko yor mais ki koo xamante ni sa sens la rek franchement parler maa ngi la koy ñaanal mu woyof te réussir waaye tamit dafa am koo xamante ni euh, dama am lu ma lu ma dégg lu muy defal mbëri mise technique parce que dafa néexul nga jël sa licence man assurance moom man moom laa gën a compte ci làmb gi duñ toll assurance yow renouvelé durant un an yow nga ne yow kii bu duggee ci bi stade bi jour combat bi nga koy assuré te bëri na tey mbër yoo xamante ni ci làmb la ñu gër bi lañ see ñoo faji seen bopp mais léegi assurance bi ana njëriñam bu ñu amee na koo xamante ne xale bu ndaw la bëri ci combat diir bu gàtt yàlla ibil ko buntu wërsëg mu delloo ñu ko dama koy remercier di ko wax na ko xalaatam rafet na trop at bi mu def mun na ko xeeb waaye ñun xeebuñu ko mbëri ndaw yi dañoo sonn dañuy rafle faju il est temps sax ba kenn ku ci nekk boo feebaree loolu nga sacrifier dem foofu dem faju ji te nag ku jar a jàppale la moom zoo technique moom ñaar nag gis naa leen ci du ma tuddu seen tuur nag waaw mais gëm naa ne ñaar ñoom bu ñu tegoo seen loxo dinañ ko yor zoo technique waaw man ñoom ñaar ñoo laa doon waaw ñoom laa jàpp ñu ko yore nañ ko jël waaw. lan ngay tàggoo sa supporters yi fan si loolu leen di wax. waaw gis nga de mais xam rek maa ngi leen sant bu baax a baax parce que tamit cant rek laa leen amel chaque jour ñu ngi may woo yaakaar ni combat bi taxaw na vraiment am ñoo xam ne dëkkuñu sax Sénégal billaa wala dañ may woo saa combat bi ma leen def leen nànk man combat bi taxawut de te fan yii damay jékki-jékki xaw ma xaw ma làmb xaw ma fan lañ ko bind ñu ne man damaa jël avance man comprendre ma démb sax ma ko benn site wax na ma dañ ne site benn xaw ma lan moo ne da ngaa jël avance ma ne ko man kay maa doog a xam te ñu may ñu may ñu may woote. combat bi taxawagul des na mais de toute façon bu ñu jógee ci lii ñu ngi dem ci màggal bi bu ñu jógee ci màggal nag dañuy continuer suñu entraînement nekk ci rek bu yàlla defee mu taxaw dinañ bëri waaye li ñu jàpp te li ñu gëm mooy dinañ bëri ren incha allah rabbi neexee yàlla waaw